sëñ Cheikh Mbacke Daaru Rahman yàlla yàlla yokk leeram taas ci barkeem di nuyu Pape Abdou Fall Fiara nga xam ne chaque année dana ma Xaadim Njaay ak sa équipe yow yaa yow yaa yaa may gérer sécurité bi gis nga boo yaa ngi nii muy gor mm-hmm. ba ma jàppee ba léegi bàyyiwu xam nga Macky Sall nag ñii la war a xool ñu mel nii ñu mel nii jox leen ordre national du mérite mérite ñu ñu ndax ñii ñu ngi liggéey pour Sénégal. ku ñëw fii tey lépp luy mbay ak meññeef ci ci Afrique ci Sénégal lépp a ngi fii dugal. tey fiara bu ne gis naa ko mais bu mel nii ren. dama ne Pape Abdou Fall moom. ku yokkul da ngaa wàññi mais Pape Abdou Fall daa yokk. dëgg la dëgg la muy taalibe Cheikh la Cheikh Sadou di ah. gërëm ñam maara ak doomu ndeyam yi. di nuyu Matar Ba. man ciment laa benn yoon lay tooy. yàlla na ko yàlla taxaw. Matar Ba yaa xam li nga bëgg yàlla na la yàlla jàppale taxaw la. nuyu famille caaro yu géej yëpp di nuyu samay mag yi ñoo xam samay frère lañ mhm. muy Abdou Jigal Ndiaye Ousseynou Ndiaye mooy kilifa gi mhm. ak Ablaye Ndiaye ñoom luñ ma ñaan ci àdduna dañ jox ñoom la am ñooy samay kilifa heure bu ñu ma ooyee ñaan ma lépp lu ma jàppoon ak magi caaro yi mhm. dama koy bayyi mais ñi ngi ñi ngi félicité suñu suñu doom muy rek rek diko ñaanal yalla defal ko jamm mais mais Khadim ko yoon nga sëpp ci combat bi la mo war lool ñu japp après combat bi andi Khadim bàyyi Khadim lan la lan la euh dañuy wax ni ibakat waaw yalla ñu yalla doli sutura ibakat mm-hmm. lamb ji mm-hmm. suma ma ñëwul lamb ji waaw billahi nga gis ñu ñaaw bo ñëwul woon barki sëñ touba barki ibakat tay la koy doo ko wax mais suma ma ñëwul lamb ji mm. lu yéeme ngay gis. ci côté rëg-rëg. barki mais yàlla bëri na sutura. ndax barki Sëriñ Fallu Mbàkke lu bëri loolu tax amul ci ci ah. mais nag dañuy sant yàlla di julliwaat ci yonent bi. Ah. di ñaanal rëg-rëg. waaw Iba Kane mm-hmm. jàmbaara neex a jàppale. non franchement Iba Kane booy bi. bi mu nekkee ci biir géew ba arbitre du kii noonu ba mu daw génn. waaw Iba li booy bi li màcc moo gën a xonq léegi. da doon wàcc. ma wax la ni gis loolu bu ko Reug Reug bu loolu ci moom. waaw. ba arbitre soufflé. waaw humiliation am. parce gis naa ci biir géew génn ñëw ci ci mukaali. waaw moom bu ñu ko wëree noonu man maa ne booy fàttali leen. waaw da doon wàcc. pare jóg na ma tàpp ma ne ma père da sa set su ma egg di ko daal. jàmbaar neex a jàppale booy vainqueur la. même fu ñu wàcc xam nga bu sa doom di wàcc deret da nga indi ko te mu war a jàkkaarloo war a jongante sa xel dina am ci lu mu dem di nga ko ñeewantal mais après booy bi moo jox ña fa nekkoon ñëpp courage kon nga xam ni affaire dañ ko jàpp mystiquement non xam nga làmb ji li ci laxasu lépp ñu la ko wax dëgg la xam nga mais di la wax ibakan acharnement yi ñuy def ñun lépp lu ñu jàppoon làmb loon bàyyi nañ di ñaanal Gaston Mbengue yàlla na ko yàlla may wér. xam nga démb Pape Abdou Fall sama kilifa la. Mm-hmm. lu mu mën a bàyyil damay bàyyi. xam nga mm-hmm. nee ma yaa jiite xale yi. yow ci jàmm rek nga ma sa dox. kenn musu di bakkan mas ngeen a gis Xaadim Njaay fi mu yàqee laam. ah. Eh? gis ñu ne Xaadim Njaay. Mm-hmm. match la wala làmbam ji yàqul. booy nag noonu laa leen encadré. ñun ci jàmm la ñuy dox. di nuyu sama famille yëpp di leen jéggalu. ndax li ñu dégg yëpp man maa tax ñu di ko dégg. waaw mais loolu. Mhm. amul sens. xam nga lu tax. Mhm. kan mooy président de tous les Sénégal. président Macky Sall. kan mooy grande dame. Euh, Marème Faye Sall. liñ dégg man xaaj ba dégguma ko. te heure bu Marème Faye Sall di gën ñu escorté ko. dëgg la Macky Sall heure bu gën ñu escorté ko. mais loolu la yàlla dogal. Ah, xam nga mais mais Khadim tey en tant qu'expérience bi mais tey Ibakan Ibakan ma lekk xaj. Hmm. ak ki kiñ ci Seydina Mohamed. Hmm. na day daan. man mo gëna garaw ki giñ ci sayidina muhammad nga xamni kuñ bind koko tax nga ñew ñu daan la ñom def nañ ko waaw kon Ibakan amna na yoo buñ ko dé def waaw pour ampleur combat bi tay combat bi tay jaay bi mako jaay dem na ba affaire Sonko ak ay Macky Sall ak yooyu yëpp kenn talatu len deug la xam nga deug la loolu man mako def sama initiation mhm. pour mana bis musul am mhm. tay Ibakan mhm. lamb am ñu dem ba une semaine avant combat promoteur bi yok biye yi te terewul li ñuy song kon dañu waro a jaay mention spéciale kep ku nan xaarim jaay di ci tek leneen rek. yow jàppal ni sa wajur mo mel non yow. mais ñun du saga te man nañ ko ah. Mhm. ndax man sama yaay dundatul sama way dundatul. lepp lu nit di wax rek. bal na la ci xol bu seddu gi di wax ni amna benn beur bu ñu wax Kona. koku sama dom sita maa ngi koy remercier. Mhm. di ñaanal. yàlla na ko yàlla defal jàmm li defal doomu ndeyam di nuyu Abdou Seck xam nga di nuyu abu Ndiassé korog bi mu waxee ci Siteu moom moom konaa moom ba booy tarkindaar yi tegal ko jàpp ku ne xam ne ni doomu xaadim yëpp mm. amuñu ku kuy delloo avance escouteur am ba ah. konaa maa ngi la laaj sa bi nan nga def ba jot ci kon arrêtel sa wax ji ngay wax di asarna wu yow gëmoo kenn hmm. waaw mais di bakkan waaw ne nii ah. affaire baa ngi desee ci ñoom mais desetul ci ñoom hmm. di nuyu ñoom alaaji kan ñoom ñëpp hmm. ñoom layti ah. xam nga encadrement bi ñoom tafaa ñoom ñëpp ñoom seex bàyyiwuñ kenn xam nga ñun ñu ngi toog suñu ruq mooy bi commencé nay entraînement am xam nga waaw mhm. commencé na entraînement am mhm. di wax ni làmb tamit xam nga ni bakkan rëg-rëg mhm. làmb li rëg-rëg korog ku xool li mu indi ci làmb ci ba mu dalee bëri ba léegi mosu koo indi te xanaa xam ne bi ko CNG daggee mool yi dañ dajaloo dañu yaakaar ne ay 3 millions lañ ko dagg mool yi ne dañuy dajaloo 24 heures ñu delloowaat ko lañ ko daggoon rëg-rëg ne leen baal naa leen kon nga xam ni booy bi sportif la. léegi dama lay laaj da ngeen di dugaat géej wala gaal bi da ngeen koy génn. gaal gaa nga fa ñuy sere ba léegi. gaal gaal gaal gaa nga fay sere. waaw non non non non guy gi mi ngi ci gaal gi. guy gi mi ngi ci gaal gi waaw yéeg na waaw. moom yéeg na ba pare mi ngi ci kal bi toog. lag lag lag moo fa def ak Balla Gaye. waaw ku bëgg na ñëw. ku bëgg na ñëw waaw ñun. mais est-ce que ñoom bëgg nañu Reug Reug. non ñoom buñ ko bëggul tamit. Hmm. Reug Reug produit la boo xamante ni. waaw jaay na boppam. jaay na boppam xam nga. làmb ji. dafa manqué ay ay ay ay ay ay ay ay VIP ci kaw. dëgg bokk na ci cour des grands léegi. Uh-huh. kenn mënu ko ci génne. dugg na ci par force. xam nga uh-huh. ak état bi mu yor. Uh-huh. ak professionnel bi mu yor. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm. saa Cees dañ koy ñaanal. yàlla na ko yàlla defal jàmm. ndax taxaw na ne bu per Khadim jéggal ma mais jullit la man jàppalu ko dara. xam nga sama sama doom la jàppalu ma ko dara moom xam na ko sax. xam na ni man sama xol dara newu ci xam nga. ñëpp ñi taxaw di wax ci xarim lu ñaaw rek. waaw billaahi bal naa leen. liiru jaan nee na day la ko. terale bal naa ñëpp ba mu des liiru jaan nag. ba dama bëgg loolu mu leer moom ñëpp jéggal naa leen ba des liiru jaan. Ah, waaw fu ma ko jàpp moom. Ah. compagnie dina mel ni mbàccum gerte moom naa ko xam. liiru jaan. Ah. bii boo nga booy génn nga wuti gàrru koor. mais est du ñëw bu ñëwee même bu daggee bii du dugg. même bu ko Pape Abdou Fall invité du fii moom du fi fii baal naa ñëpp ba mu des Lirou Diane dama bëgg mu leer ci bopp nit ñi fu ma ko jàpp fu ma ko jàpp Iba dina mel ni mbàccum tuq si bënd saa ñu buntu foire bi waxuma fii buntu ba fee. Ah. Lirou du fi dugg waaw. bu ma kenn ñaan Pape Fall bu ma ñaan. waaw bu ma ñaan. Ah. Matar ba bu ma ñaan. xam nga ah. dégg naa sax mm-hmm. ministre de l'intérieur. waaw kii ñu mu tëddee. ministre de l'intérieur bi Antoine Antoine Philippe john waaw mang koy ñaanal degg na sax daf ñu bëgg a oo waaw pour jubóolu jubóolu jubóo ma jubóo jubóo ma tey yàlla même bu la andilé xaru laadu bu mu indilé laadu fukki laadu ay tala bi rek jubóo ma liiru jaan mom il faut que moon ko ni lu ma yabé dina ko saf dina ko safal bam mu saf sap ci digg dekk bi ndax duma ma duma du ma ah. waaw di sant ñep mm. di gërëm ñep ibakan mm. di ñaan foire bi sénégalais yi mm. dama bëgg ngeen ñew daw ci xol li xew ci foor bi. waaw fiara bi. te koor gaa ngi ñëw. waaw te lépp lu nit war a lekk. mu sell jëm ci sa biir. am na ci fia Pape Abdou Fall indi na ko. dëgg la tey Pape jërëjëf waaw fi amuloon mu ñaaw de. yàlla na yàlla defal jàmm. jërëjëf Khadim ndeysaan Khadim ma ngoog Khadim jërëjëf. jërëjëf.